Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Le coronavirus, dénommé COVID-19 COVID par l'Organisation mondiale de la santé, est devenu une épidémie grave qui se propage à une vitesse exceptionnelle et qui semble et de plus en plus épouser les contours les caractères d'une pandémie mondiale. Notre pays, malgré les nombreuses mesures prises par le chef de l'État pour la préserver, compte désormais parmi les nations où le virus est présent, avec la particularité qu'il est arrivé chez nous par le truchement de citoyens étrangers disposant d'amis ou de parents au Sénégal. En de pareilles circonstances, la sagesse et la responsabilité voudraient que nous adoptions des comportements adéquats et appropriés à la situation. Il s'agit notamment de garder notre calme et notre sérénité, de ne point céder à la peur ni aux rumeurs, de respecter scrupuleusement les règles de prévention et de lutte édictées et indiquées par les services sanitaires. d'agir avec responsabilité en contactant immédiatement les services sanitaires en cas de constatation de symptômes avant-coureurs de la maladie. Le virus se diffuse ou bien se diffusant rapidement dans les lieux de grands rassemblements, là où les foules sont nombreuses. La prise de mesures préventives efficaces interpelle particulièrement le département dont j'ai la charge, de ministère des Sports. C'est pourquoi nous avons pensé à lancer cet appel pour alerter et appeler à plus de sens des responsabilité dans notre secteur. Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentale à travers le monde ont déjà été annulées. voire reportée à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais nous avons l'obligation de nous inscrire dans les directives que les autorités sanitaires ont données et dans les mêmes directives données par le président Macky Sall au gouvernement du Sénégal, qui sont les premiers remparts dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la propagation du coronavirus. Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d'annulation d'une organisation sportive n'est envisagée pour l'heure. Cependant, je demande aux fédérations, aux groupements sportifs, aux clubs, aux associations sportives, d'une manière générale, de rester vigilant et déterminé et de faire, en tout cas faire prendre ou bien faire preuve de plus de responsabilité et de respecter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte contre le virus. Je demande aux sportifs, particulièrement à tous ceux et à toutes celles qui fréquentent les les infrastructures sportives, ici ou ailleurs, de respecter strictement les mesures prises par les autorités sanitaires à travers le ministère des Sports pour ensemble qu'on puisse combattre cette euh, ce virus qui est en train de se propager. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la presse sportive à accompagner les efforts de l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports, euh, à travers le ministère de la Santé, pour que toutes les mesures prises soient diffusées, comme on le fait avec nos manifestations sportives, pour que chacun puisse être dans les dispositions de faire de la prévention, mais aussi de faire de la communication. Nous resterons attentifs, en tout cas, aux directives et aux nouvelles instructions données par les autorités sanitaires pour demander au monde sportif de se conformer à ce mbokk yi li tax ñu daje fii tey mooy wax ci li nga xamante ne moo am ci réew mi muy tudd coronavirus wala ñu gën koo xam ci Covid 19 ci organisation mondiale de la santé muy njàqare di jafe-jafe. ci conseil des ministres bi passé président Macky Sall am lu bari loo xamante ne ci ay manifestation la woon yuy dajale nit ñu bari mu différé ko loolu day wane ne ñun ñi nga xamante ni yor tàggat yaram te chaque week-end chaque samedi wala budul samedi ñuy daje te fu ñu daje nit ñi nekk fa dañuy lancer un appel pour que ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bokk ci wàll woowu muy kuy seetaan wala muy kuy pratiquer lépp lu ministère de la santé joxe te autorité sanitaire yi joxe ko ci muy taxawaay ñëpp taxaw ci ba nga xamante ne suñu ndaje dina nekk ndaje njàngale waaye ndaje it bu ñu respecté li nga xamante ne moom lañ joxe comme ay directive li am solo mooy ci wàllu Sénégal ak fu dul Sénégal am na mobilisation wala ay ndaje yu bëri yoo xam ne dañ ko reporté wala ñu annulé ko Sénégal nag toll guñu fu ñuy teree manifestation sportive ñu ngi ñaan yàlla bu ñu fa yegg waaye nañu déglu surtout ñu yore fédération yi ak groupement sportif yi ak acteurs yëpp ak même presse sportive bi nañu déglu ndig digtal yi ak fi nga xamante ne foofu la ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi wax ne fa la ñu war a jaar ñu jaar fa ak ñoom pour ànd ak ñoom xeex li nga xamante ne mooy balaa gi di coronavirus ba nga xamante Sénégal dina ci mën a mucc surtout sportif yi nga xamante ne suñu njaboot lañ ñu mën cee mucc loolu moo doon kaddu yi di leen sant di leen gërëm. Merci. Cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer pouce bleu pour liker.